weer wi amee weeru safar bu amee fukki fan ak juróom-ñett ñu daje ko daje ko tabaarakallahu waxtaan ci wàllu diine waxtaan ci wàllu xam-xam waxtaan ci wàllu jaar-jaari sëriñ bi radiallahu taala anhu ci wàllu xam-xam euh, xam-xam yooyu doon yoo xam ne defar na pénc defar na nit tabaarakallah xam-xam yooyu bu nu ci jukkee lu mel ni li ñu raw du riyaaxin jox ren li ñu raw du riyaaxin jox ren te Serigne Afia Ahmed ñaŋ moo ko moo ko liggéey ànd ko ki mbokkam ñooñ daara niñ koy faral di ànde muy luj na bu am solo boobu nga xam ne ñoom ñoo ànd <coughs> ngeen jéggal moom liggéey liggéey bu rëy boobu bi nu ñëwee ca màggal ga nu baaxi ko baaxe ñu ko ñoom a cheikh mouhamadul muntaxa jatara ñoom seexuna mbàkke abdul wudud ñoom sëriñ mbàkke abdurahman ñoom alxaaji cheikh alaaji njaay cheikh ndindi ñoom fadal buso tàmba ak ñoom maam mor mbàkke ñu jox ñu ko mu tudd al xayb al bahriya li cheikh al xadim ahdaasun wa ibar bëri na koo xam ne kii mi ngi dem di màggali di ñëw dana soxla woo ku ko jàngal waaw tukki géej gi xew-xew bi ci xew ak njàng mi ci nekk walla xew-xew yi ci am la tàmbalee ca tund jeewal ba waaxu Moussa Siri ba ñibbi ba loolu exposé ko ci barab am na solo lool moom lañu def defal ren tabaarakallahu naka noonu daa dañuy yóbbale diraasaatun xawla al muridiya loolu amoon na tom bu njëkk ñaareelu tom bi nekk nii nga xam ni ci ren lañ ko tëggaat bokk ci silsila min thamaraati rawd moom itam di téere bu am solo boo xam ne dana jàngal nit euh, lan mooy almuridiya xaqiqatuha wamba wamba diwhaa tabaarkàlla ñoom xaay suñ xaadim silla ci ña ko liggéey ca lañ bokk waaw ñoom afiyatu ahmed ñang ca lañ bokk xaadim mbàkke seexu ca la bokk seexu naa mbàkke abdul wudóot ak ñi mel ni ñoom ñoom cheikh muntaxa jatara maanaam daal yooyu daal ci masaalikul jinaan yu ñu bëgg a dem màggal ci lañu nekkoon jar ci téere bii di jawaamiul kalim fii ma warada an al min ulumin wa xikam waaw moom tam di téere bu ama am solo eh, abu madiana bu kebe moo ko tartib moo ko taxqiq waaw di téere bu am solo moom tam eh, jóge ca màggal ga naka noonu karaamaatu cheikh ahmadou bàmb ab téere la bu ñu fa jële buy jëm ci jàngale karaamaatul awliya ak lu ko saxal yii ak yeneen yu ni mel jar na di daje jar na di daje ña fa daje ñépp kenn ku ne am lum ca tibbe ba demee ci bu tarqiya la ñuy exposé wala ci nu ñuy yëkkatee xaside yi wax naa ko sëñ Mbàkke ne ko benn culture la bu am solo moom xasida ndax ku seet li ci li ci ruuse ci wàllu économie ñi dund ci xasida ñépp yéeme na tabaarakallah mbokk yi noonu ñu jeexal ci majalla bi nga xam ne rawdu riyaaxin da koy génne tudde ko majallatu màggal eh, di moom tam benn journal bu am solo bu génne ay xam-xam yu bari waaye bu joxoñ ànduk penc meeg bokk nekk benn ànduk pénc mi ak bokk nekk benn moo tax ci wàllu shaxsiyaat yi nga xam ne ñëw na ci ñu joxoñ ci génn àdduna ak Serigne Dame Touré menn andi ci Serigne Cheikh Rahilu Shamsin min sumuusil maarifa noonu lañ ko ci tuddee waaw naka noonu defal ko ci benn marfiya bu daw yaram naka noonu al cheikh Mouhamadou Moustapha Cissé naka noonu al amin waaw naka noonu mu ngoog kon nag yooyu am na solo lool mu ngi ci danañ ci dellusiwaat incha allah sunu waxtaanu tey nag jëm ci li oto yi def ci tali bi dawalkati oto yi di ko yóbbee oto yi méccem dawal oto ñépp mënuñu ko ñépp waruñu koo def ndax ku yàkkamti bu waree oto boole ku yàkkamti mu ñaari yàkkamteem mu yàq mel ne jeneen jikko ju bokkut ak jikko yi teggi nag yaru boo yaree oto boo yoree oto jox ko ko kon war nañu waxtaan ci penc mi nag su fekkee ñoo ngi waxtaan ñu yokk ko ndax lii faatu ci sunu tëli yi faatuwul ci mennum réew penc mi bi ñu tàmbalee dem bitim réew les sénégalais réew mu mel ni itali da daan dégg rek accidenté na accidenté na accidenté na italiens yi daal toog waxtaan def benn étude ginnaaw téeméeri accident yoo fekke juróom-ñett fukk ya ñun ñii la ñun sénégalais yi 80 pour cent yi ñu na italiens yi daal ne kon baax na léegi ñii dañoo a dawal kon daal di tàmbalee lu ñutu seen permis yeeg fu ñu ko jële ndax permis daa doon loo xam ne boo ko masaa boo ko amee normalement ci Sénégal waroon nga boo demee Mauritanie dawal boo demee Mali Gambie dawal boo demee Afrique du Sud dawal boo demee tabarkalla foo dem dawal waaye nag ñu seet ne kon ñii di dawal ni leen di joxe permi yi nan ko seet ndax dañoo munta dawal ba noppi am permi walla ñu daal tàmbalee bolok permis yooyu ne du fi dawalate ku fi bëgg a dawal dangay yor sunu permi nun italiens yi commencé tëj bunt boobu tijji buntu ñëw def si euh, def si permi seen bos waaw passé permis yooyu soo ko amee ñu jox la nga dawal boobaak léegi accident yu fa am accident yu fa am boo moytul li la la ca Sénégal yi def motul motul trois pour cent wala 4 lan la bëgg a wax kon ñun war nañu jàng foofu ñun tam ne kon mbirum permi yi ci réew mi jar na seetaat jar na seetaan man nag du ma proposé ñu def permis à point donte nag document bi sori na waaw document bi sori na waaye permis bi ci boppam jëmmam ji deful dara moom mbaam ñoo yem ak nag ni ñu leen tuddee tabarkal la permis bi permis rekk la def ko à point ak ñàkk ko def à point sanction yi nga xam ne moo ciy tege ak ñi koy tege ak ki ñu koy teg foofu la coow li nekk nit mën naa am permi di dawal su fekkee def na lu tax ñu nangu permis buñ ko nangoo yóbbu ko commission na permis bay ñibbisiwaate lan war a seet nga xam ne lay jële permis bi ca fañ ko nangoo su fa jëlee bu permis à point amee itam mën na koo jëli fañ ko nangoo su fekkee intervention mën naa tax permis ba du fa yendu intervention mën naa tax kon point bi kenn du ko jël waaw góoraxuma waaw su fekkee ne buñ bu nit ki defee dara ci wàllu conduire ñu nangu permis intervention mën naa jëli permis ba dama ne permis à point kon moom tam su ñëwee intervention mën naa mën naa jëli point ya waaw mën naa jëli point ya wala mu aar point ya kon mbir mi du foofu ci sama gisin <laughs> waaw mbir mi du foofu ci sama gisin waaw ma di kon yëf yi ki def li ñuy tere rek la waaw dangaa def li ñuy tere permis à nga am nekkul à point lu ci mën di xew rek war ngaa xam ne li nga def dañ koy tere kon ci permis yi nanu seet ni muy génne na muy seet nan seet ni muy génne ñi koy joxe ñan lañu kan moo ko yeyoo waaw ndax boo joxee nit permis te wur koo am jëye jum ca def yéen ko bokk boo joxee nit permis te warta am jëye jum def yéen a ko bokk te jëye ñaar lay doñ tooñ boroomam mbaa tooñ moroomam tooñ boroomam suñ borom mën na koo régler tooñ moroomam lañu régler tooñ moroomam lanu regleloo loo kon nañ waxtaan ci permi yi su fekkee niñ koy joxee baaxut ñu tëj bunt boobu te di ko joxee noo xam ne ku ko yorati ku la séen ngay dawal ñu xam ne kee yeyoo na ko bu nu yóbbuwaatoon nu paase jiwaat bu nu yóbbuwaatoon nu paase jiwaat seetetet ndaw nangu permis yu bari bu nu yóbbu woon nu paase jiwaat loolu jar naa bàyyi xel lool waxtaan ci permis teg ko ci term yi ba ku amati permis ku la siin ngay dawal dana xam ne kee yeyoon na permis war na koo am waaw war na ko am lu am solo la seet auto école yi ndax ñi ñuy jox permis dañ leen koo jox ci seeni étudiant rek lañ wala dañ leen koo jox ci sañ nañ koo am wala wala wala waaw diggante auto école yi ak fa ñuy passé permis nuy seet ko ak fa ñuy joxee permis loolu daal mbokk yi jar na seet ndax xaw ma euh, nu mu demee waaye boo tollee ci tali bi di dawal léegi nga dajeeg yoo xam ne danga xam ne lii moom du nii waaw laaj bi it danay samp léeg-léeg waaw ñi ci tali bi di surcharge yenn xeeti surcharge yi xanaa romb ñu ay alkaati ak gendarme loolu tam ab laaj la buy sampe saa su nekk lenn léeg-léeg est-ce que suñ événement yi moo laaj surcharge walla déet walla déet euh, danay laaj sëñ Mbàkke bu ñu nekkee Makka ndax gis nga fi benn oto buy surcharge mu ne ma mukk quarante cinq personnes chauffeur bi dugg ci biir compté ko ba muy quarante cinq yem képp mu nga passeport yi taal dem noonu léeg-léeg nga dégg oto bu accidenté war a jël fukki place ak ñeent quatorze place nga dégg ñu ne accidenté na ñu ne la vingt cinq mort nañ ci trente blessé nañ vingt cinq plus trente ñaata la fan la ko oto bi defoon fan la ko oto bi defoon ak oto boobu nga xam ne kii dawal dafa gëmut li tubaab bi wax xam nga surcharge mi ngi tàmbalee ci nit ki dafa gëmut li tubaab bi di wax tubaab bi su bindee oto ba noppi daf ci def benn notice bu wane ne oto bii nàngam la tudd marque sàngam la essence la walla jasel la oto bi vitesse am lii la waxawax a ba mu jeexal wax poids bu jorul dara moom oto bi wax su sufee poids ba ca war a teg ca poids boobee poids vide bi je pense que noonu la PV professeur ji bi poids boobu lan la ci war a teg nga jox ko nit moom gëmul li tubaab bi wax moom gëmul li tubaab bi wax soo jëlee sunu biis yi bàcc siis biis yi mooy kaar yu mag ya mag a mag ci nogay mi ko xamul sax xam ne bis xanaa peut am mbar am nay biis yu fay jógee jëm si Dakar waaye bis bi tubaab bi da ko defar defal ko ñeenti pënu képp waaw wala ba bëri ñeenti pënu képp ko ab port bagaas defal ko ay mbuus ci wet yi ci la ñuy dugal bagaas yi defal ko ay mbuus ci wet yi ginnaaw da ko defal ñeenti pënu képp day wax ne port bagage kon ñeenti pënoom yi du ko àttan ci wàllu nit ñi ciy dugg mu ne ñeenti pënoom yi nangami personne la war a def quarante mu ñëw am ku ko jël gëmut li tubaab bi wax yokk ay ban ci biiram lu mat fukk ak juróom jël ab barab tudde ko jàkka ji da ci def aw nit ñeenti nit wala juróom lang ci bitti ñu di leen gis ñuy dem ñu ñu fabriquer ko porte bagage ndax gëmuñu lu tubaab bi wax te ko tali bi nag mu ne nañ koy dawal soixante-dix ñu dawal ko ñaari soixante-dix ndax ñàkk gëm lim wax <laughs> baax na baax na léegi moom tubaab bi moom wàcc na ci boppam kaccat ko ci ki ko def nag ak ñi ko def waaye waaye war nañoo war waras na la woo waxtaan ak ñoom ginnaaw porte bagage waru cee am bu ci amee ñu dindi ko ginnaaw ban traverse waru cee am bu ko amee ñu dindi ko ginnaaw surcharge waru ci am bu ko defee ñu dindi ko lépp lu ci war te nekk ñu dindi ko ba amee ay faar yu weex tàll di ko dawee ñu dindi ko lu tax duñu ko dindi nun tam dañu wax ne waa ji gëmuñu tubaab bi baax na <laughs> nan jël suñ téléphone yi rek ñu lay woo nga ne góomu tubaab bi di bu lañ buñ lay woo doo bës bu verte bi xanaa di bés bu rouge bi nan ko def léegi waaw walla sama technicien bii ubbi sama micro bi bàyyi ma may wax bu noppee du ngeen dégg dara oto tubaab a ko defar moom ñu ko defar xam na ko sunu borom wax ci alxuraan ala ya'lam man xalaq waaw xanaa ko bind dara xam nga ko ci wér alaa yaalamu man xalaq huwa latiful xabir waaw mu ndax man mi bindee xaw ma nit aha kay mu tax ki defar oto xam na oto waaw sunu waxtaanu ma xaban jaw rahmatullahi alayhi waaw tubaarkàlla bu nu jéggi télé bi mu taxaw ma jéggi jàll mu jéggi fekk si ma ree ma ne ko xam naa li ngay ree dangay wax ne euh, dangay wax ne xawma oto waaw xawma oto ginnaaw xawma oto moo tax ma ñeme ko mu ne ma looloo am nag mu ne ma ñun ñi ne ci oto di noddantee ko jubbantee ko def yëf dañ koo xam xam gi ñu ko xam moo tax ñu ragal ko ñun nag suñu penc mi loolu daf cee war a feeñ bu baax a baax a baax oto yi mbokk yi surcharge gi ëpp na surcharge surcharge mooy def ci oto bi lu ëpp li ci war a dem ab kaas de boo ko defee moom day na tàmbulee tuuru na di wax maa bañ ab kaas ab kaas ba <laughs> ba ci ndaw ko naay di xel li ndékki waaw imaam ab ab ab lay daw mën la ca xam na ci dara ab kaas boo ci xel li ndékki bu feesee nga di xel li moom day lànk di tuur la ca des di di bañ waaw di tuur la loo ca def rekk mu tuuru lu tax yaa ko def lu yaa ci def lu ëpp li mën a def xaas am na fulla waaw waaye oto yi liñ ciy def bari na lool quatorze place na def quatorze place treize chauffeur bi set place de laa gis ni nee nañu moom du du surcharge waaw ndax moom mënoo ca def huit huit xanaa ne doo jël benn toogukaay def ci ñaari nit laa yaakaar mbokk yi accident yi métti na lool ñi koy wax sax xamuñu méttiwaay bi ñi ciy deele ñoo xam méttiwaay bi génn kër juróom-ñaari nit jóg di màggali des ca yoon wa juróom-ñaari nit di jub juróom-ñaari nit ku ne xam na na wëyëful kenn nit képp tabarkàlla waxuma laa juróom-ñaari nit métti hmm? na de ku newul métti na it tabarkàlla xam nga ne métti na ñaar fukki ak juróom ñu rangale leen nii ngay gis mbooloom néew mbooloom néew rafetul waaye nanu pare pour jële ko fii prix nag lay am jële fi accident yi prix lay am prix bi mooy lan jéem a tëral yoo xam ne dana tax permis yi ñu xam fi muy jóge dana tax oto yi ñu xam oto yi ñooy ñan bu ñu ci noppee congaan tëli yi nun sunu yoon yi léeg-léeg nga dem ci barab yoo xam ne ñaari oto mënuñoo bokk ku ne ci tëli bi weesaloo ndoo ndax tëli bi du ay raay ab tëli la su fekkee kenn ki dafa jóge dëkk sàngam ki jóge dëkk sàngam ñuy daje ñoom ñaar fi ñuy daje ci tëli bi ñoom ñaar xajadoowuñ fi kenn nangu te sa tànk yu mel noonu mën na ci am mbokk yàlla na jàmm yàlla nekk seen ak seen njaboot waxtaan wi jeexut dañoo ak suñu ko war yëkkatee bu leen neexee ci kanam tuuti ngeen woote ci 88 628 98 98 ngeen bës 2 noo ànd ci suñu jotaay bi nga xam day am lundi di am mardi di tàmbali 8 di jeex 10 heures jërë ngeen jëf ci ànd beeg Sud FM seen rajo yàlla ñu bokk yenn yendu ci jàmm. yal na yàlla sàmm leen sàmm nu aar leen aar nu def jàmm ci réew mi réew yi ko wër yal na yàlla defar seeni mbir defar suñuy ci def ci suñuy poos dara ngeen naan dal coxtaan moo di seen mbokk Alioune Sall in uridu illa al islaaha ma tataatu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu